salaamaaleykum les téléspectateurs Bantamba TV muy mbégte rek ak contentement comme ni ñu koy defee rek chaque jour ci émission 100 pour cent tey nag ñu ngi fii ci terrain Castors ñëw seet si benn ndaanaan ñu koy wax lamin Diaw ku ne lamin jaw wax performance ci un sportif Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw grand maa lay maa lay fay yow sama grand nga li <laughs> ma la waxoon naa ah, dama arrêté woon sax interview bi parce que gars yi comprennent pas des fois booy wax mais yow moom mun ma la bañal dara yaa ma yar xam nga sama idole nga ci match football ak tout donc euh, maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax maa ngi nuyu itam téléspectateur yëpp quoi. dëgg la dëgg rek comme ni nga koy wax rek loolu moom waaw lu leer la parce tey mën naa wax tamit sa papa moo ma yar. waaw tamit sa papa tey jii lu ñu am rek euh, def rek ci résultat ci sport ci football rek ci sunu papa Alioune Diaw rek la jaar. encore une fois ñu ngi koy rendre hommage di ko ñaanal yàlla sunu borom teg ko loxo di wax nag Lamine xam naa ni moom euh, amoo temps parce que maa ngi la fekk tey fii ci de musculation bi tey gis nañ am benn équipe ñu naan Tanière gis nañ macha allah gis nañ benn benn effectif boo xam ne da ngay xool fii rek xam ni il y a de la qualité lu waral la Tanière. wala la Tanière ah, ah, benn projet bu ma defoon ak maag sama benn copain bu yàgg bu quatre ans la boo fa yàgg six mois sept mois exactement bu nekkee ñu teg ko en place parce que but bi mooy comme ni ma la man football naa quoi qu'on dise ah, football naa ak ñoom Henri Camara et donc euh, yàlla def ma gaañu nag euh, mujj ma continuer sama carrière football bi nga xaw ma woon dara nag dégg nga <laughs> voilà léegi paa bi yóbbu ma États-Unis ma continuer sama étude foofu donc tellement j'aimais le foot donc euh, sama paa lu mu nekk ci milieu bi sama naay sama yaay sama yaay nekk sama yaay en même temps nekk restauratrice mm-hmm. donc ce que j'ai fait dama dem defi tout ce qui est strength and conditioning mooy nan lay nekk préparateur physique ak ma dem defi nutrition. donc loolu moom indi si football bu ma ñëwee nag dama doon seetaan ay match yu bëri gis de vrai talent ils sont talentueux mais tu sens carrément y a affaire affaire yu bëri la yu manqué parce que li manqué woon mooy vraiment mooy maintenance yu yi parce que image pour man bokk entraînement yi doyul woon euh, duñu lekk bu baax ils sont pas bien entretenus quoi en fait man loolu laa gisoon donc euh, bu ma wax ak benn copain bi bu nu bu tudd Aziz nu teg benn projet bi ma ne ko mais man mun naa jël ay joueurs soo qu'on va faire benn test bu mag jël les meilleurs joueurs jox leen chance comme ça nu mun bokk tenir gratuitement nag but bi mooy c'est vraiment de les développer euh, sur le plan physique plan mental plan alimentation xam nga sur psychologie bi après nu yóbbu nu jox leen chance bu nu mënee dugg ci équipe première division yi fii war nu yóbbu leen en donc loolu mooy di projet bi vite fait ah c' était juste que challenge boo xam ne personnel la woon en tant que euh, professionnel de préparation physique et tout je me suis dit que damay jox sa bopp challenge boobu je vais prendre jeunes je vais les changer seen morphologie changer seen mental parce que tu vois tellement de talent yu yàqu parce que manque de d' la. donc euh, loolu moo ma gënoon suscité pour ma def euh, projet tanière bi quoi. waaw comme ni ngay wax rafet na di wax ni rek comme ni nga wax wax nga ko léegi ci côté physique parce que ci côté boobu sax laa bëgg ñu discuter ci ak comme li nga wax rek xale yi nga xam ne tamit da ngay jël benn jour yoo xam ne am nañ qualité nga def ci ñoom ba changer leen loolu moom gis naa ko fi parce que gis naa fi ay jours yoo xam ne y a cinq ans ci ginnaaw ou ans ci ginnaaw ak léegi lu ñu mel bu ñu benn hmm. lan mooy secret boobu. wala secret bi comme ni ma la waxee but euh, euh, premièrement c'est vraiment jëlee diagnostiqué parce que problème bi ma gis que fii ci préparateur yi ñuy def le plus important duñ ko xool mooy lan mooy inventaire xale bi lan moo nekk ci yaram bi blessure yeeg euh, ndax day am problème mu articulation dana am problème mu cardiaque loolu yëpp c'est très important mu nga xool ko ñu ne on a eu la chance de travailler si sunu biir centre on a un docteur on a un kiné. et on a benn dortoir te euh, booy ak ñun lay dëkkal donc euh, dinay xool seen habitude yu ñu amoon yoo xam ne c'est pas de habitudes de footballeur parce qu'ils mangent pas bien ils dorment pas du tout ils ont trop téléphone donc loolu lay boole ñun ñëpp mais le but lu gën a am ci solo mooy la musculation mais moo ci gën a dangereux aussi parce que bu nekkee xamoon nan ngay musculer un un un sportif que ce soit un un un wala mu nekk un basketteur un footballeur ku nekk dafa am programme am ak un nit non lambda comme man ni ma mel mais le but euh, d'un joueur actuellement malheureusement le football est trop trop vite maintenant il faut être très puissant très explosif avec beaucoup de cardio donc loolu noonu bu nekkee nekkaloo ci benn professionnel non seulement joueurs yi dañuy claquer chaque jour non seulement booy ils vont être très très lents parce que nit dañuy jaawale Euh, muscle puissance ak muscle euh, explosivité ak muscle boo xam nit bu diis comme man mi comme man entraîné wu pour nekk pour am puissance wala pour euh, pour ak explosif et un joueur qu'est-ce qu'il a besoin il a besoin de réaction de vivacité ak ak puissance loolu la soxla loolu la football loolu lay laaj donc lu ci gën a am solo mooy côté nutrition bi aussi parce que joueur yi par exemple il cinq fois par jour waaw cinq fois lu tax ma wax ko dañuy entraîner trois fois par jour dañuy def six heures du matin dañuy def de seen euh, cardio parce que man cardio du mu ko entraîner cardio jour bu tayal rek moo ko dul am donc six heures du matin lay yeew def seen quarante cinq minutes une heure de temps jogging à neuf huit à l'heure quarante après nu ñëw sangu ndekki ba dix heures nu yéegaat soit nu def pliométrique wala nu def musculation wala nu def vivacité wala nu def explosivité wala réaction après midi bu nu paree nu ndekkiwaat après nu dem noppalu ba deux heures deux heures trois heures nu añ bu nu añee sieste ba dix sept heures dix sept heures nu jox leen seen collation après bu nu jógee foofu euh, dem ñëw salle ba ñëw terrain ba di ba dix neuf heures dix neuf nu lekkaat ab nu soog reer soog a tëdd waaw donc but bi mooy lan moo tax mu def loolu tu c'est soxla woo nga defal leen lekk yu bëri mais dafay qualité day tuuti parce que but bi mooy nga jox leen ay lekk yu ndaw proportionné chaque quatre heures de temps wala cinq heures de temps pour seen yaram mun absorber nutriments yi nga leen jox yëpp donc soxlu nga jox leen boolu ngand dañuy nekk ay portions yu ndaw seen yaram di ko absorber kon sinon lépp dañ koy yóbbu ci toilette yi. qualité quoi qualité parce que équilibré il faut mu am protéine il faut mu lipide il faut mu glucide xam nga surtout fibre bi comme ça seen biir du tëju parce pat. donc bu nekkee xamuloo nan nga koy étaler ci semaine bi vendredi doo am loo bëgg parce que day fekk nu nu nu seere affaire yooyu parce que pat bu bëri parce que pat dafa baax ci ñoom parce que dépense beaucoup d'énergie quand on parle d'énergie mooy glucide bi nga xam ne moom mooy fonctionner loo muscle beeg yaram beeg xel bi ko mais bu nekkee équilibré woo ko ak ay fibres affaire yooyu dafay indi problème ci joueur yi donc c'est des calcul yu garaaw sama jabar par moom moo yor programme bi parce que on dama ko train ba mu nekk comme nutritionniste donc chaque semaine xam ne exactement bu bu ñu lekkee tey jii di lan lay ko war a casser lan lay manqué bu ñu gisee jeune boo xam ne on a besoin de lui pour mu développer comme booy boo ngi doon développer moom dafa am ay kii spécial yoo xam ne c'est uniquement pour euh, pour booy yi quoi maanaam ñëpp bokk nu programme mun nañu nduroo lekk mais duñu bokk lu ñuy programme ak portion dëgg la comme ni nga ko waxee rafet na parce que lii moom ci professionnalisme la rek parce que comme li nga wax rek nekkoon nañ à l'étranger xam nañ li nga xam ni moom moo fa xew moo tax li nga wax nii dama naan wax macha allah parce que tey jii nii est-ce que amoo ay contacts yoo xam ne tey jii nii les clubs yi nga xam ne tamit ñu ngi fii ci Sénégal ñu jege la pour mën a di def yow ak yow hivernal fermé. wal xool nañ ko quoi mais bon bu ñu xoolee projet comme projet bi ñun notre but c' est pas de compétir but bi mooy c' est de préparer les joueurs moo bien dégg naa ne booy ils ont bonne de compétition mais mine de rien on a eu 62 matchs année bi avec équipe yu mag yëpp Sénégal donc euh, foog naa euh, championnat Sénégal amul lool. amuñu 62 matchs. waaw ah, dëgg la parce que dinaa ñëw foofu parce que ñëw euh, foofu laa waroon après euh, ñëwaat ci question boobu mais dama bëggoon xool parce que li nga gis li nga gis ngay def nii te ji nii dama gis équipe yi des fois damay gis ñuy génn euh, loolu sax après ci mbëri laa ñëw waaw dinaa ñëw parce que 100 pour cent sport la te sport sportif nga parce que professionnel nga kon sa entraînement. képp kuy sport rek war na mën a ànd ak yow muy lutteur di mbër di karaté di basketteur comme ni nga ko wax tout le monde maanaam gis parce que li nga gis nii nga def ko ak sa équipe bi ak résultat bi nga xam ne gis naa ko ci boy yi comme yaa ngi wax joué nañ ay 62 matchs tey jii nii est-ce que amoo tey jii nii pour les clubs euh, yi nga xam ne tamit ñu ngi fii ci Sénégal est-ce que amoo contact des fois di ñëw parce que am nga euh, bon local boo xam ne mën na. Euh, maanaam mën na mën na mën nga mën nga ci téye plus de cinquante personnes ou je ne sais pas waaw ci loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que tey jii nii ak li ma gis professionnalisme bi ngay liggéey nii. est-ce que mm-hmm. club yi waruñu la jege pour nga gën di mën a def ci seen xale yi seen joueurs yi. mais bien sûr joxoloon euh, non seulement dañ lay contacter mais bon xam nga dafa am benn culture bu nekk Sénégal ce qui est malheureux maanaam du ñu xool lan moo arrangé jeunes yi carrément xool lii ànd na mooy arrangé mooy dem di def di ak benn hôtel boo xam ne booy ils font rien du tout là-bas xam nga day ñëw foofu vite fait loolu moo am mais bu nekkee liggéey nga leen teg tegal leen facture <laughs> man xam nga man du ma liggéey pour gratuitement damay fayee ko carrément parce que man je suis un professionnel dama am ay employés yu may fay dama am qualité laay wax. léegi nag problème mun am ñoom ils préfèrent dem ci benn hôtel doo daw foofu vite fait non non mais mais prépare mais grand je te pose une question pourquoi Sénégal actuellement ni on n'arrive pas à vendre des joueurs de première division dem Europe rek jouer directement parce que c'est qualité bi ban moo am préparation physique lañ lay njëkk wax euh, euh, répétition. de d'effort physique sur le terrain ak euh, longévité football mais Sénégal suñu première division boo leen seetaan yi vingt à dawee xam nga lu tax parce que seen préparation physique seen hivernal moo amul doole. hivernal mooy déterminer équipe ci saison bi d'accord hivernal dafa am ñett face aller ñett moo am ci foot ci sport léegi dans le monde. dafa am lu ñu waxoo F saison mooy par exemple saison bu jeexee deux semaines après nga jël ko musculer ko foo ngay profité boo paree nga def euh, euh, li nga wax ni euh, hivernal hivernal mooy près saison. près saison bi ngay profité wutal ko cardio ak volume d'accord après mu am aller léegi bu ñu jógee aller léegi la war a tëjaat. pour yóbbu retour gisoo champion du Sénégal retour bi deux à l'heure la booy dawee ñëppay feebar déshydraté day jeex tàkk parce que yooyu yëpp tubaab da koy xam Sénégal bu amee trêve nit ñi dañuy wut ay match d'entraînement mais trêve pour tëj joueurs yi fejaat leen la jox leen nu lekk fejaat leen beneen semi hivernal exactly so degré boobu moo tax léegi tu peux pas produit des joueurs de première division yéen seen temps yéen da ngeen jógee fii dem jouer première division génne fi benn joueur à part euh, le petit Lamine Camara là ah, moom moo dem jouer dem jouer te bu nekkoon man naa ko yokk doole bu dul jeex balaa muy dem parce que nu mu toll nii fin de saison après xam nga nu mu defoon fin de saison il bu mag la defoon day jël temps parce que léegi problème bi am na yoo xam ne tubaab bi loolu la ko jàngal am doole tubaab bi yoonam nekkatu ci itam pay son argent wutal benn préparatif mu yokk la doole. loo mun football mun football si ne n'es pas puissant dans le football doo dox yoo xam nga loolu. dans le football c'est devenu tellement rapide. dama am benn site bu ma bokk. vitesse tubaab yi entre nu jël bal bi ak delloo ko deux secondes cinquante la ñun sunu amateur ñu ngi ci six secondes pour jël bal bi jël information bàyyi yow imaginez kon booy nu nu rawee rawee nañ nu trois secondes de d' information.